ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوكي جينا بني سنت يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog television seen télévision Futur Média nuyu leen ziyaara leen ndokkee leen bu baax a baax ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm salam sutur adina ak alaxira yàlla na yàlla doole nu ko defal nuyu ñëpp ziyaara ñëpp ñaanal mboolem xalif généraux yi na ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi te ñaanal mi ñaanal borom Kergi, gi ñaanal kilifa yi réew mi nuyu bu baax sëriñ Jili Ñang mu baax mi fi bàyyi ko léegi na am jàmm mbokk yi xam damay tëb rek dala ci waxtaan xalif généraux yi kenn ku ci ne waroon na laa tudd waaye ñoom ñëpp ziar naa leen waaye wala ma jël nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général des Tidiane mu joxal nu ko Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides joxal nu ko Serif Abdoulaye Thiaw na Thierno Mohamed Bachir Tall xalif omarien ak xalif généraux yi na ci biir réew mi yëpp mi ngi noonu am nañu mbégte gërëm ñëpp émission baa ngoog siira ngoog dundu yonent bi alayhi salaatu bi waaye yenn ñu jël ci gaaw yàlla yi yenn saa yi ñu jël euh, ci nitu yàlla yi ñi nga xam ni liggéeyal nañ borom bi subhanahu wa taala waxtaane ko waaye mbokk yi jàll leen nag direetu Seydina Mouhamed bi fi bàyyi koo njabootu Cheikh na Cheikh Saad bu bi fi bàyyi koo muy Cherif Kutub Haydara euh, nu ngi koy jaal njabootam gépp Eli Cheikh Cherif nu la koy jaal jaal ko njaboot gépp euh, Pëlel Diagne jaal leen ko waa Mbour gépp yéen itam waa euh, Ouest Foire waa zone A nu ngi leen di jaal Cherif Kutub sunu soppe boobule surtout Seydina Mouhamed boobule yàlla na ko maam ja teeru ci darajey Seydina Mouhamedin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi incha allahu taala tey jii nag ñu dalal jëmu joo xam ni yaakaar naa liggéeyal na réew mi fii waaye liggéeyal ko bitim réew tey nu war a waxtaanee benn góoru yàlla ci góoru yàlla yi muy Cheikh Fodé Ndong tey jii la ñu war a waxtaanee fi mu jaar ak Cheikh na Cheikh Saad bu bu Mouhamed Fadal Maamin Taal bul Xayr bu Jéli Muxtaar liggéey gi mu liggéeyal lislaam liggéey gi mu liggéeyal yonent bi alayhi salatu wasalaam toj ili yi dugal fa kalimatu la ilaha illallah tey jëmm jooju la ñu war ñu dalal nak euh, njabotam di euh, njabotam way di turundom di euh, Cheikh Fodé Ndong ambassadeur son excellence excellence nu ngi lay nuyu nu ngi lay ziar nu ngi lay ndokkeel di am mbégte lool lool ci jàkkaarloo bi nu jàkkaarloo ak yow tey nekkoon nga ambassadeur Sénégal bu ca Koweït euh, nekkoon nga ko euh, Bahreïn euh, teewal fa Sénégal liggéeyal réew mi liggéey yu ama ama ama am solo tey jii nag nu war a waxtaanee sama am excellence nuyu naa la ndokkeel naa la ba bàyyi la nga nuyoo. ñu ngi lay delloo nuyoo oustaz Pape Anne. di eh, na nuyu nuyu lislaam di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, tabaarakallah ahsanal xaaliqiin ni nga présenté émission bi rafet na. Mhm. xanaa ñun tam ñu profité nuyu ñëpp. Mhm. yëpp la ñuy mhm. kër gi. que utul buyuuta te mooy buntu bi. bon ñu ngi koy nuyu parce que li effort yi mu def ba lii am. Mhm. moom borom kër gi. Mhm. ni kon bu ko deful woon lii du am. Mhm. kon ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu nag kilifa diine yëpp. te bàyyiwuñu kenn nag. di nuyu itam mbokki taalibe yeeg mbokki euh, dëkkandoo yeeg xarit yi. ak deret yi. tabaarakalla xanaa jéem a defar tuuti rek présentation bi ci ambassadeur bi. dëgg la ambassadeur la mhm. euh, def naa fukki at juróom-ñett si île yi. si si bi si golfe bi. parce que ay île la itam mais golfe bi. Mhm. Euh, golfe boobu fukki at juróom-ñett yooyu euh, Irak laa njëkkee. Irak nekk fa. Mhm. premier conseiller. jóge fa ñëw Arabie Saoudite. nekk fa premier conseiller. deuxième conseiller laa njëkkoon nekk parce kanam ma nekk premier conseiller. Mhm. jóge fa ñëw euh, Kuwait. Mhm. nekk fa premier conseiller am fa ambassadeur bu baax nag kooku moom il faut ma tudd ko muy Abdoul Ahad Mbacké. Abdoul Ahad Mbacké. di doomi sëñ Fallou Mbacké. muy nit ku yiw nit ku baax. Abdoul ambassadeur nu koy nu koy am jëmm nit ku am personnalité. wallaahi ba nga xam ne. Mhm. yaakaar naa ne Kuweytu lañ fa liggéey liggéeyuñu liggéeyuma ko fenn. est-ce que est-ce ba ma fa jógee nag la ma yàllay soor a def ambassadeur. macha allah may soor a dem euh, Bahreïn def fa juróom-benn at. macha allah comme ambassadeur. Mhm. damay bañ nit dégg ko ne ah mu ngi ne ambassadeur la Kuwait te ambassadeur Bahreïn la woon. dëgg la loolu xam nga nit ñi ñoom. dëgg la dëgg la boo leen mayee buntu rek. mu leer mu leer ni baax na ci am na ci solo. ah mu leer mu solo macha allah. Uh-huh. donc ñu ngi lay. waaye bi nga jógee premier nekk ambassadeur ca Bahreïn. ca Bahreïn. Uh-huh. Mm-hmm. macha allah foofu laa nekk ambassadeur. 2005. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. ba 2011. allah tabaarakallam. juróom-benn at. ma retraité ñibbisi. en mille neuf en deux mille douze laa yegg si Dakar. macha allah donc. tabaarakallah donc loolu mooy présentation bi ñu doon jéema a rek pour mu. Mhm. nekk loo xam ne day ànd ak mbind mi li ñu bind. Mhm. waaw loolu weesoo ñu ngi lay delloo nuyu yow itam. Pape Hann jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ah, parce que boo ñu invité fii dañ siy sawar. alhamdulilah raison yu bari nag. Mhm, mhm. bokk na si raison yi mooy yàgg laa suivre gis ne lu baax rek ngay liggéey. alhamdulilah. Ah, di ngay mbokk itam. wallaahi wallaahi yaakaar naa ne ñàkkul dinañ si waxtaan. dañ ci dañ ci ñëw léegi bokk Medina Maska. wallaahi. Uh-huh. si maam Maska. maam Maska sama maam. Uh-huh. tabaarakalla tabaarakalla. ñu ngi nuyu imaam Thierno Ka. ak uh-huh. ñoom Thierno Ka. ak sëñ Jébel Ka. sëñ Jébel sama maam. waaw sëñ Aliou Ka. nitu yàlla yooyu sëñ Kabir Ka mm-hmm, mm-hmm. ñooñu ñëpp suñuy mbokk lañ tey boo demee Medina Baye Mass Ka mm-hmm. euh, imam ba fa nekk di sëñ Mbay di jiite jumaa ja aawom maa ngi moom a bokk ndey ak baay. allahu akbar macha muy Adama Ndong. ndeysaan nu nga xam ne mbokk gaa ngi noonu dëgër na. jërëjëf. jërëjëf ambassadeur nu tey nag tey ñu war a waxtaanee euh, Cheikh Ndong am na ñoo xam ne ñu koy dégg xamuñu ko. mais am na ñoo xam ne déggunu ko euh, tey bu ñu doon wax euh, biographie wax kan mooy Cheikh Fodé Ndong wax ñu cosaanam ndax nit pour nga bëgg ko faaw nga xam ko ba noppi ginnaaw bi nga ñu waxee cosaanam wax ñu it Cheikh Fodé fi mu jaar ak euh, li ko yàlla defal ci lislaam bi moom nitu yàlla boobule ambassadeur. jërëjëf Anne vraiment sa question bi kontaan naa si parce que mooy suma soxla tey. Mhm. tabaarakallah Cheikh Fodé Lamine Ndong mhm. muy tur wi koy oowee tey mooy turam bu mujj mooy nu mu bon bon am na juróomi tur waaw bon su may nettal histoire fu mu toll si histoire ba rek tur woowu laa koy oowee mhm. parce que ba muy juddu jaata la la ko baayam tuddee jaata waaw donc baayam waajuram bu góor tudd Bure mhm. bu doon Sénégal olof yi ñu ne buri mhm. comme al buri al buri ah, ah, waaw ah. séeréer yi ne buree buree yaayam tudd ñilaan fay mhm. donc euh, présentation waajur yi rek moo lay xamal ne moom séeréer la mhm. mais si séeréer yi dañu am ay xeet ñun xeet wi ñu bokk xeeti siin la si siin si bokk si biir xeeti siin nag mu am beneen pàcc bu ñuy wax ñoominka ñoominka ñoom ñu si séeréer yi siin yi. Mhm. mooy lébu si olof yi. mooy séeréer yi nga xam ne géej lañu féete féetee. ñoom ñooñu la ñuy wax ñoom ñu ko bon moom Cheikh Fodé euh, dama ne dama koy oowee tur yi ñu ko xamee jaata bon euh, ñoom ñu ko la juddoo si il yi. Mhm. si dëkk bu ñuy wax Joogaan. Joogaan waaw. ba mu fa juddoo 1821. Euh, mo nek fa ba am ñaar fukki at ak ben muy 1842. Mhm. mu ah mi ngi gën 1821. 21 tabaarakallah. macha allah ba 1842 mu and ak ay nijaayam comme ni nga ko xamé rek ñoom ngi kay ak lebu yeeg séeréer yi dañuy nooraani. Mhm. dem nappi ji ben dekk ba noran ba jeex ñu am fa seen wërsëg ñipsi mhm. mu and ak ay nijaayam dem gambie dem mm-hmm. nooraani mm-hmm. moom jaata ba mu demee jaata jaar bétanti dem dëkk bu ñuy wax Kerewan si Gàmbi mm-hmm. ba mu yeggee Kerewan mu romb benn góor guy jàng arxuraan mu taxaw ne ko waaw parce que boobu l'islam duggagul si il moom jaata mi jur seex Fodé. waaw mu non Cheikh Fodé si boppam. mooy jaata mooy jaata. moo tudd jaata dama ne la. dundam fu comme juróomi tur xamal nañ ko ko. waaw fu mu toll si dundam rek dina. tur walaa ko tur walaa ko fii boobu jaata jaata la tudd la tudd. jaata donc moo ànd ak ay nijaayam dem ka euh, Gàmbi jaar Bettenty jóge Bettenty dem dëkk bu ñuy wax Kerewan si Gàmbi. Mm-hmm. muy dox ba gis kuy jàng alxuraan. mu ne ko waa yow li ngay jàng nii lan la neex na di mu ne ko lii arxuraan la parce que boobu wax naa ko léegi mooy il yi l'islam duggaku fa xanaa bon kenn nit ko tukki woon rek dégg lislaam ñëw di ko pratiquer mais boobu ñoom ñëpp dañuy jaamu xërëm si il yi boobu mu ne ko ah arxuraan bi moom neex na di foo foo ko jëlee mhm. sëriñ bi ne ko waxi yàlla la mu ne waaw waxi yàlla yow noo si jotee mu ne waxi yàlla de yonentam bi ñuy wax muhammad rasulullah moo ñu ko andil alayhi wa sallam mu ne sallallahu taala alayhi wa mu ne ko ah man de lii daf daf ma dugg dama ko bugg a jàng mu ne ko toogal jàng mu ne ko déedéet su ma toogee jàng su may nijaay duñ ma fi bàyyi parce que xamuñu lii mu ne ko bon nu ñuy def mu ne ko bàyyi ma ma def su may pexe mm-hmm. mu dellu sa tefes ga guddi jël gaalam puus ko ba si digg géej gi bëmëx ko fey dellu si semaine nijaayam yi di ko wër gisuñu ko gisuñu gaal gi ñu ne bon dee ku dem dafa dem nappi des géej mhm. ñu jàpp ne dee na ñu ñib si si il yi ne jaata dee yal na ko yàlla yërëm gaañu te fekk na amoon na jabar am doom mhm. à l'âge de 21 ans boo ñu ne yaata dee na ñu def lañ si war a def moom mu ñëw si sëriñ bi ne ko léegi man nga maa jàngal sëriñ bi commencé foofu la commencé jàng alxuraan. allahu akbar te boobu mi ngi am 21 ans. 20 ñaar fukki at ak benn rek la am mu jàng fa alxuraan ba mu fa jàngee alxuraan boo commencé am xam-xam jaata ba effacé wu ñu koy oodee foodee. Ah. olof yi ne fooree. fooree. ah bi ngi gis ni tur yi changé bu di waaw jaaxle xam baa ngi dugg. jaata ba fa la arrêté ba mu jàngee xam-xam ñu ne ba ñu tuddee ko nag léegi diw de Fodé la. Ah. mais arrêté wul foofu mu continuer njàngam mi. Mm-hmm. noonu la demee Bunkiling joge fa dem Inor. Mm-hmm. jóge Inor dem dëkk bu ñuy wax Karantaba sooña Karantaba sa Casamance. Mm-hmm. Euh, am na ñu naan sax jàkka Sonia Karanta ba tey si Afrique noire jumaa jafa nekk te ñu toj ko léegi moo gënoon a aaj euh, yàgg si Afrique noire foofu la jàngee dëkk bu ñuy wax soña Karanta ba si benn sëriñ bu ñuy wax Moustapha Dabo mm-hmm. ba fa jàngee ba am xam-xam mm-hmm. ba 1862 mu ñib si si ili oote si lislaam ñu ne ko waaye yow li ngay oote mooy lan 1862. 1862. mu ne ko yow li ngay oote nii mooy lan mu ne lii mooy lislaam mu wax leen lan mooy lislaam kan mooy yonent yàlla mu Muhammad li muy def naka naka lañ koy defee mu commencé leen ko jàngal samp jàkka commencé di jiite sa jàkka ja nit ñi tàmbale tuub ndànk-ndànk nit ñi commencé tuub ndànk-ndànk mais ñëwuñoo ak doole mm-hmm. parce que boo ñu ne ko ñun dee lii xamuñu ko mu ne leen lii mooy lislaam mu nekk si loolu 1862 ba 1867 Maba Jaxu Ba mhm. mu daan collaborer depuis Gambie mhm. doon mu koy xaaraale saa mu wax ko parce que comme mu ngi collaborer ma ba Jaxu te xam na ne ma ba Jaxu mhm. mu ngi tuubal di ñëw te Maba Jaxu neewoon na ko su ma jógee Saalum continental damay dem Siin tuubal leen te ñun comme si siin la ñu bokk. Mhm. mu ne bon de ba jox bu ñëwee siin lislaam dugg si. allahu akbar. malheureusement ma Maba Jaxu buur siin rey ko. waaw 67. si xeex ba mu doon xeex. Mhm. dëkk bu ñuy wax somb. somb uh-huh. si siin. Mhm. mu ne ah si xelam man de ba Jaxu mi ma doon xaar rey nañ ko en 1867. bon dee mënatumaa xaal comme fukki at yooyu mu doon oote ñiine ne juróom-ñaari at mhm. am na ñu ko commencé topp ñu am solo mhm. bokk na si Ousmane juuf bokk na si faamara Nges Sarr bu Ñoojoor mhm. bokk na si euh, Jiita saar bu Baasul dëkk Yëkkëni xaw nañoo mat ñii ne fukk ak juróom la ñii fukk lañu ñooñu gëm nañ ko ba commencé ànd ak moom si li muy woote. Mhm. mu ne comme waa ili nanguwuñu maa déggal te man Gambie nit ñi xam nañ fa suma valeur. Mhm. xam suma xam-xam xam la may woote te ñoom ay jullit lañu soose ñoom dañu gëm jihaad. Mhm. nangu waa il yi nangu ñoo dëgg damay dellu Gambie ànd ak soose yi ñëw jihaad si il yi tuubal leen. noonu la delloo bi ànd ak ñooñu fukk yeeg juróom yooyu dem betenti jóge fa dem Gàmbi préparé jihaad bi nag dugaat si îles yi tuubal leen ñoom ñëpp. ñëpp nekk jullit ñëpp nekk jullit. îles yi tey ci senegal ak ni muy toll yëpp les îles du Saloum ñii di ko tuddee delta du Saloum. Mhm. rek ngay dem si senegal mu am zone boo xam ne zone ba yëpp amul église. te loolu liggéeyam la parce que bu yiixoon rek église yi remplacé jàkka yi dëgg la xasuma kenn parce que jubluwuma si ne l'église baaxul mais njàmbaarteem mais wane né. lii la liggéey liggéey ci l'islam si l'islam parce que booba il yi ñoog Joal Fadiouth nii la géej gee ngi nii Joal Fadiouth a ngi nii Joal Fadiouth l'islam ñëw na ba foofu mhm. commencé bu ñu doon bu Cheikh Fodé yiixoon na ñëw rek mu dugg si il yi ci il yi allahu akbar donc moom jihaad boobu mu jihaad moo tere ili euh, euh, l'islam tel faa samp te nag moo tax jàmbaar ju mel ni Cheikh Fodé mi ci l'islam ki dañ ko war a waxtaane waaw loolu mooy dëgg léegi dugal na dugal na l'islam ci ili waxaguñu dara si moom mhm. waaw ba dugal na l'islam si ili ba mu dugalee l'islam si ili ba mille neuf cent ñii ne neuf cent ñii ne neuf cent un mhm. mu xëy ne mes gisatuñ ñu ñii ñu naan dañ ko rey Casamance parce que am na ñu jàpp ne moom mooy Fodé Kaba Doumbouya te at boobu la Fodé Kaba Doumbouya dee mhm. lu nekk ñu koy xalaat mhm. ba fukki at mu dellu si 1901 ba 1911 mhm. mu dellu si waat si île yi ñu ne ko waaw Fodé Fodé Demba parce que moom comme yàgg na si soose yi de Fodé Demba lañ koy oowee muy ñetteelu tur bi soose yi di ko woowee loolu. xam nga lu tax Fodé Demba. déedéet parce que Demba si soose mooy ndong si séeréer. Euh, est que. <laughs> donc ba mu demee Casamance Gambie jóge fa dem Casamance. Uh-huh. ñoom xam ne comme xam mu ngi mel ni di jara nekkee Njaay. waaw waaw. sant yu bari dafa day nekk jóob Traoré nekk Diop loolu lan donc si séeréer yi mm-hmm. ak olofi Sénégal yi noonu la nekkee Gambie ak Casamance Demba mm-hmm. bon ñaareelu tur bi ñëw na léegi ba mu ba mu ba mu demee jihaadi foo dee Demba lañ koy woowee macha allah mm-hmm. mu jihaad ba pare 1900 mu jóge il yéen a mes xamuñ fu mu dem mais suma waajur mi nga xam ne doomam la mooy Serigne Moustapha Ndong bu may nettali daf ma daan wax suma papa ba mu demee xawdu. xawdu mag ñi dañu dañu dañu doy waar. buy wax toujours daf naan buy wax dem danaan xawdu buy wax si ñib si mu ne nimzaat. Euh. daf naan suma papa ba mu demee xawdu bu wax buy wax sa ñib see mu ne ba mu jógee nimzaat. mu jógee nimzaat. nga gi nga boo toppee nag histoire xam histoire ni mu doxee nga xam nag maanaa wax ja mais mais ni ma déggee ak fi mu tàmbalee bi ma gën a àddina ak as bii nga wax ku guddoon fan la ba muy dem xawdu mu ngi si juróom-ñetti fukki waaw loolu moo andi tuuti jaaxle 21 la gën a àddina 21 1821 ba 1809 1909 1900 1901 1900 la dem xawdu 1901 la taseeg seex na Cheikh Sadibou boobu mi ngi am 80 ans. 80 mu ngi am juróom-ñett fukki at. Mhm, ok ba mu amee juróom-ñett ba parce que dafa dem xawdu ñuy laajte waaw lan mhm. xam nga ak famu mu xam nga ñaata kilomètre la. ñaari junne kilomètre yu manqué juróom. allahu akbar. te boobu boobu oto amul. parce que xawdu ba shot 1200 kilomètres la. waaw shot ba Sénégal. six cent kilomètres la ba Dakar Dakar ba Ilia mille euh, cinquante kilomètres boo ko boolee presque deux mille kilomètres yu manqué cinq cinq kilomètres la nga xalaat jamono yooyu mille neuf nit ku dox ak ay tànkam ba xawdu ba xawdu mu jógee xawdu dem nim euh, dëkk bu ñuy wax Tuwayziqt ca Mauritanie sa Mauritanie ba mu demee Tuwayziqt question ba ñii ñu ne waaw lan moo ko yóbbu xawdu ak lan moo ko yóbbu tooy ziq uh-huh. ñii ñu ne leer la gis mu koy topp ñii ñu ne déedéet tubaab yee ko fa yóbbu mm-hmm. parce que jamono jañ fa yóbbu lañ fa yóbbu sëñ Touba mm-hmm. moom ñu ngi ko yóbbu 1901 Mauritanie wala boog mu nga dem Mauritanie 1901 uh-huh. sëñ Touba dem Mauritanie 1903 ah. nga xam ne ñaari at moo nekk moo nekk si diggante mm-hmm. donc ñu jàpp ñun ba léegi comme amaguñ preuve ne tubaab yee ko déporté mhm. ne leer moo ko yóbbu xawdu ba mu demee xawdu mhm. mu dem fekk cheikh na cheikh saadi bu dëkk bi ñuy wax tuway ziqt wa xayatu mhm. mu def faag moom juróom-ñetti at si juróom-ñetti at yooyu cheikh na cheikh saadi bu si borom xam-xam bi ak ñi ñi ñi ñi def siiraam mhm. ñu ne bu soxlawaan ndox bu moom bu masaan a xëy naan si benn récipient mhm. dëkk ba yëpp mën nañ si naan allahu nag mu xëy bugg a tabax jàkk moom moom seex na moom seex na sax sàddu xam ne nag ndox mi ñuy naan ak ndox mi ñuy tabaxee jàkka du benn si mhm. mbooloo mi muy xool ba jàkk seex na seex Fodé ñu ngi ñëw si Cheikh Fodé parce que Cheikh Fodé ba fa la départ. Mhm. mu ne ko Cheikh Fodé. Ah. <laughs> nañ ci xam nga Fodé la woon. waaw mu ne ko Cheikh Fodé. mu ne ko la bayka mu ne ko da ngay nëbbu wante am na lu la yàlla may. Cheikh na Cheikh Saad boo ko loolu moo ko wax Cheikh Fodé. est-ce que mu ne ko. Mhm. dama bugg gas dama bugg a tabax te dama soxla teen. te Tuwaysir te ay xeer rek a fi nekk ak désert ma bëggoon li ma xam ne àll yàlla am na lum la may nga woon ma fan laa mën a gas am tee ndox Cheikh Fodé ne ko gasal fii ñii ñu ne déedéet Cheikh Fodé daf ko ko gasal. allahu rek ndox mi ball. ba ndox ma balle Cheikh na Cheikh Saadi bu dafa kontaan ba wëy si. Mm. wëy wa mooy biiru Tuwaysirta دار اليمن والبركة دار اليمن والبركة إن شاء من قدر السكون والحركة بنيتها ملجأ للمؤمنين ولم تزل منافعها منافع البئر آه، نعم منافعها في الدهر مشتركة الله أكبر مرمكج <laughs> من هذا تؤمنه وذاك تطعمه وذا تعلمه جخن شيخ شيخ فودي شيخ فودي وذا تعلمه ما المصطفى سلك الله اكبر اسكي <laughs> اسكي شيخ ما شيخ سعد بو شيخ ما سعد شيخ سعد مو وي خيرت شريف خيرت شريف ني ديف fa juróom ñetti at 1908 شيخنا شيخ سعد بن préparé pour dem nimzat bobu nimzat amagul. cheikh na cheikh Sadibou. cheikh Mahfou aidara buzi Casamance. cheikh Fodé bok nañ ci kilifa yi doon préparé pour dem nimzat ante cheikh sax ne cheikh Sadibou si may yàlla. ne cheikh Mahfou. yow do meuna ànd ak ñun. parce que yàlla won na ma ne soxla nañ la Sénégal sa sud ba. allahu akbar fu ñuy wax Casamance. mu wax ko Cheikh Mahfou mu wax ko Cheikh Mahfou demal foofu nga toj ko tuubal leen. Cheikh Mahfou dem Casamance. Cheikh Mahfou jóg rek jubal Casamance. allahu akbar 1908 la loolu. waaw 1909. Cheikh na Cheikh Sadibou. wax ak Cheikh Fodé Lamine Ndong. ànd dem. Nimzaat. Nous, ñu ne hmm. ñu nekk fa 1911 Cheikh Cheikh na Cheikh Sadibou donc 19 ba 11 muy 80 muy 90 ans. yo xam Cheikh Il Cheikh bon ngi 90 ans. 90 ans. Mhm. mu ne ah, akbar. nga yeggali la nga commencé woon. Mhm. Cheikh Fodé dellu si 1911. Mhm. si il yi lan lay yeggali jihaad na nit ñi dugg nañ si lislaam mhm. lan moo fi des pour yeggali ko ndekete waroon na samp daara. Euh, pour ñi tuub mën a jàng ci daara ji. deuxièmement il y dugg nañ si lislaam mais xam-xam ba demeegul noonu mu jël nag il yooyu il bu nekk mu yónnee fa benn ilimaan ah. ku leen di jàngal ba noppi di leen jiite di leen jiite macha allah nee nañu Seex Fodé ba mu fiy jógee mhm. daaraam ji ñii ñu ne deux cent cinquante taalib ñu fa doon jàngal fa ñii ñu ne deux cent ñoo fa nekk bi muy ba muy jóge àdduna parce que ba mu ñib see deux mille mhm. mille neuf cent onze mhm. mu ngi wàcc liggéey 1914. mi ngi noonu ñu ngi ñëwaat léegi kon ñu nit suñu imaam ñëw na ndax tàkkusaan jot na. Uh-huh. mbokk yi dañuy taxawandi lay maxtaar Alassane Seyni ñu julli tàkkusaan incha allahu taala ma dellusiwaat ak ambassadeur Cheikh Fodé Ndong ñu waxtaanee maamam ju sellu ci tedd joojule tey jii ngeen gën a xam kan ay Cheikh Fodé. seeni ñu dem ñëwaat. barakallahu fiik. yaakaar xëcc teral ndaw. day teral mag day teral dëkkandoo Seydina Mohamed El Hadj Samb mbokk mi noonu ñu ngi fii ci télévision Futur Média émission bu mag boobu boobule di siira nga xam ni bu waxtu wii ne temm soppay Seydina Mohamed yi ne ci biir réew mi waaye soppay Seydina Mohamed yi nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi koy xaar ñu ngi leen di ñaanal sunu cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na ko yàlla gën a dolli waxoon naa la ni la fiyeeg yaa ngi toog ci jotaayam yaa gën a tedd kudul yow fiyeeg yaa ngi déglu ay njàngaleem yaa gën a tedd kudul yow fiyeeg yaa ngi koy yëg ci sa xol bi moom sallallahu alayhi wa sallam yaa ëpp sécurité ku dul yow mi ngi noonu gis nga demoon na nii na ngeen ma jotalal donte benn aaya la balligu anni walaw aayatan gis nga ki ñoo waxtaane tey na mu tuddoon ki ñoo waxtaane tey fa mu jaar ba jàng xam-xam ki ñuy waxtaane tey di Cheikh Lamine euh, Cheikh euh, Lamine Fodé Ndong mi nga xam ni Mouhamed lamin mi nga xam ni tey jii moom la ñu waxtaanee toj na gox yi mu toj ngir jaatal fa lislaam kon bokk ci ñi nga xam ni ñoo mottali liggéey na Mouhamed Baboule de yal yàlla yokk leeram yàlla taas ñu ci ambassadeur gis nga julli nañu ba noppi ñu ngi ñaan li ñu ñaan lépp réew mi yàlla def fi jàmm def ko bitim réew yàlla defar sunu mbiri yi ak ñaan ñaa yàlla yit mu defar sunu mbir yi àllaaxira ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais mais Cheikh Fodé euh, ambassadeur euh, wax nga nu fi ñu jaar dellusiwaat na moom Cheikh Fodé bi muy dellusiwaat tàq tàqale ko Cheikh na Cheikh Saad bu booba ñaata at la am. 90

boo koy xool mu ngi nekk ci commune bu ñuy wax Bassoul la joogaan bokk ñu bari ñu boo xamul Bassoul mooy dëkk Yikini donc c'est un village dans une île de quatre villages. village composé île Diogan. Mhm. Diogan, c'est Faliya, Falia. Munde. Mhm. Mhm. Axio. Siwo. si presque si delta bi nji dëkk yi ko wër ndëkk mooy baasul boobu ak jonwaar euh, ak ñoojoor muy arrondissement bi donc mu ngi bokk commune de Bassoul arrondissement de ñoojoor département de Foundiougne région de Fatick foofu la foofu la joogaan nekk pour tontu sa laaj bi. bi nga xam Cheikh Fodé foofu jogaan boobu mu dëkk mooy fan donc mooy foofu foofu ma la wax léegi waa ko defee nag moom Cheikh Fodé jógee Nimzaat ñibbisi 1900 onze ma wax la ba mu ñëwee ba ko Cheikh na Cheikh Saadi bu ne dangay dellu yeggali sa liggéey ba mu ñëwee la mu def mooy jël ay élimaan yóbbu leen élimaan il bu nekk dëkk bu nekk mu yónnee fa élimaan ba pare samp daaraam ba mu sampee daaraam commencé jàngale. Mhm. ña jàng si daara ja tey ñu bari xam nañ leen. si loolu la nekk ba 1914 yàlla moom ko. 1914 ci la génne àdduna. ci la génne àdduna mais. Mhm. dellu si googu ak moom googu ko yàlla moom dafa am ay fee yu si am. Mhm. feeya mooy ba muy jógee Nimzaat. Cheikh na Cheikh Saadi bu la mu ko waxoon tout Égypte mhm. la dellu siwaat ne ko Cheikh Fodé nëbbu bi ma la doon wax ne danga koy nëbbu tout Égypte moom laa lay waxaat sa jikko la effectivement xeeti ñoomi nga ku leen xam dañu mën a nëbbu mhm. wante boo demee bul nangu ñu suul la si bàmmeel ya mhm. nañ la suul feneen parce que nëbbu bi ngay nëbbu du tere bés boo amee téeméeri at si suuf àdduna dégg la. mu ñib si ne leen oo dëkk bi yëpp ak waa il yi ne leen su ma fi jógee bu ma kenn suul si bàmmeel yi. Mm-hmm. ñu ne ko fuñ lay suul mu ne topp leen ma. bàmmeel yaa ngi si xarfu ba maanaam sooy jant ba. Mm-hmm. mu jubal penku ba. ba genn wàlli kilomètre si àll bi. si ron benn dat garab gu ñuy wax. ak ndooy si séeréer maanaam mooy di mhm. ne bu ma fi jógee suul ma fii allahu akbar ak itam ñeenteeli turi Cheikh am ñu koy wax Fodé Demba Ndooy am na ñu foogoon ne ndooy la sant ah, <laughs> est-ce la andi loolu mooy uh-huh. nit ñi ko xam depuis la Gambie mhm. ba si ili ba mu fi jógee dañuy bugg di ñëw di ziyaare si xabroom bu ñuy ñëwee ne ana Mafodé Demba fan la fan la xabroom nekk ñu ne ñu ne leen mu ngi sa ron di tax ga. Ah. mooy mu nga saroon di tax si séeréer mooy ndooy ga waaw mujj gi buñ niñ laaj maam fa ñu ne mu nga ndooy ana fan la ndooy gi nekk ñu foog ne ndooy gi fan la ndooy nekk ñu defe ne sant la ñu foog ne sant la allahu akbar lii nag dafa jar a leeral <laughs> mais mais moom ci jamono moom Cheikh Fodé ndax amoon na mag ñi euh, amoon na ak relation ak ñoom wala wala wala xamante wuloo nag ndax ndax ku gane àddina 1821 mhm. yaakaar naa boo fi fekkul Cheikh Omar Foutiyou mhm. ak ñoom Cheikhul Khadim ak Cheikh Seydil Hadji Malick mhm. ak mag ñi réew mi ñoom Seydina Limaamu euh, yaakaar naa ñu maam Amari Ndaak am na mag ñu ñu xam ci réew mi maam Maska ca Banjul Samba Tukulóor ndax amante woon na ak ñoom euh, alaaq maanaam relation question bu am solo mais balaa may ñëw si question bi ma yeggali la ko Cheikh Cheikh na Cheikh Saad bi waxoon ne boo delloo na ko yeggali ba mu waxee loolu mu jóge fi ñu suul ko foofu mhm. bokk na ci kéemtaan yi ko Cheikh na Cheikh saadi bu xamal ne ko kurus gii nga yor. Mhm. am kurus gii ndox mag ma génneel tooy zixt koo si ñaanal ba ndox moo mu génn rek aajoom faju na. ñëpp xam nañ ne Cheikh Fadou ku mu masa ñaanal yàlla xam da nga feebar. Mhm. wala da nga am soxla. bul jàppee kurus gi balaa bàyyi rek mu sotti comme robine waaw. xam nga tele la ñuy wax. allahu akbar. donc boo ko wooku benn xéewal la ñett euh, benn euh, mbir la beneen mbir mi si dellusi bi mooy ba mu ne nañ ko suul foofu daf waa dëkk ba ak waa il yi dañ ne ko Cheikh Fodé fii bu ñu la si suulee bukki yi lekk la mu ne man bukki manumaa lekk suul leen ma fii waxuma ne bukki manumaa lekk mais dëkk bi nu muy sori sori sori bàmmeel bi ma leen woon dina ñëw ba wër ma tey dëkk ba dafa ñëw ba wër bàmmeel ba moom rek a fa nekk moom kot allahu akbar donc loolu te waxoon na leen ko loolu la leen waxoon mhm. donc loolu mooy dellu seen bi ma bëggoon ñu bañ koo fàtte ma ñëw nag si sa laaj bi waaw Cheikh Fodé ak li ñu wax ne moom la liggéey yëpp ak li ko yàlla may ñamu fi ñi euh, nit yàlla yiñ fi xam est-ce que daana collaborer rek ñoom waaw wala déet mu am solo si question bi pourquoi uh-huh. parce que nit yàlla yooyu Maba rek la si mhm. la preuve moy 1862 Bima je wax ne la dellu si mhm. mhm. ba ñu ba 1965 1865 Le Cheikh Omar Foutiyou gañu ah. d'accord donc collaboration daf fay xaw a jafe. Mhm, mhm. ku fi des si ñi gën a mag sëñ Ablaye Niass. Mhm. Baye Laay. Cheikh na Cheikh Sadibou. Cheikh Boukounta Ndiassane. Alaaji Malick si bu Tiwaawoon. sëñ Touba bu Touba. laaj bi tontu bi léeg-léeg daf may xaw a mais bu ko kenn ne de ñu mo gën jublu. ndax ndax ndax ku 1821. euh motax may may may artu mhm, mhm. parce que li daf may obligé pour wone lan qui ont collaboré ñooñu. Mhm. len ne bok mo len mag ñom ñep man na ndaxte Baye Laay mi nga xamne mo ci mag. Mhm. Cheikh Fodé magé nako ñaar fukki at ak ñaar. allahu akbar. kon man nako jur parce que mom Cheikh Fodé fukki at ak ñaar fukki at ak benn la am. Euh, may wax léegi ne ma Baye 1843 la. Baye Laay waaw. 1843. 43 la waaw waaw Cheikh Bou 1843 la. Cheikh Bou Kounta. waaw. est que. bon Cheikh Fodé man nako jur. allahu akbar. cheikh Ablaye Serigne Ablaye Niass alaaji Ablaye Niass. <laughs> bu Kaolack radiyallahu taala anhu. 1843 mhm. la moom itam. est-ce que. cheikh na koo jur. Mhm. Serigne Touba mi nga xam ne bu ñu leen di jël si âge moo ci war a topp. 1843 mhm. la 53 euh, la. donc Cheikh Fodé magee na ko lu ëpp fanweeri at. Alaaji Malick la.

donc ñooñu nga xam ne man na leen a jur taawam yi sax ay taawam sax ñoo mag ñooñu. mënula mhm. collaborer rek ñoom. d'accord ndax dafa dafa dafa jiitu. ñamu ka mu bokkal jabaram mooy mooy wax naa ko fi mooy ba Jaxu Ba. te Maba Jaxu 60 lan la génn ma ba Jaxu mu ngi jógee génn àddina 1867. 67 la dem. Mhm. mais collaboré na ak moom parce que Maba Thiaxu da daan collaboré ak moom depuis la Gambie mu daan yónni sax si moom Gambie seen collaboration lu mag ñi ñëpp xam la dañ si am sax ay preuve yoo xam ne bu si bokk mooy tey borom dëkk joogaan boobu ñuy wax mu ngi tudd Alaaji Ousmane Ndiaye maamam mu ngi tudd Ousmane Diouf Ousmane Diouf ñii ñu ne maa ansu Diouf. Mhm. foo fekk maa ansu si séeréer rek mooy Ousmane. est-ce que est-ce maa ansu Diouf moomu muy di maami borom dëkki joogante ak maami ñu bari sax. Mhm. moom Cheikh Fodé ko yónnee woon ba euh, ba Maba Jaxu di jihaad. Mhm. dëkk bu ñuy wax Paoskoto. Paoskoto. Uh-huh. waaw ku nekk si biir Ilia. wala nga nekk Gàmbi. naka ngay xamee ne Maba Jaxu war na jihaadi paus koto ba nga koy yónnee say taalibe. li ma bëgg a wax foofu rek mooy. preuve yi ne waaw. ak wilaya mais surtout preuve ne ñu doon collaborer. donc mag ñooñu. wante nag Serigne Touba ñoom a wóorul. radiallahu taala anhu. ndax collaborer parce que moo Cheikh Fodé. Mhm. ah Serigne Touba Cheikh cheikh na cheikh Sadibou. Euh, Karamo Sankung Jaabi bu Guinée Touba Guinée dëkk bu ñuy wax tuubaa Guinée sa Guinée. Uh-huh. ñooñu ñoo tase woon Mauritanie si benn région bi. région bu ñuy wax Trarza. donc tase boobu ñu fa tase te ñëpp xam nañ ne ñoo ñu ñoom fa ñu tase woon kenn daawul toog ñi xam sëñ Touba xam nañ ne mu ngi woon si biir région bi.

donc est ce que ñu ngi doon collaborer Cheikh Fodé euh, Karamo Sankung Jaabi Cheikh na Cheikh Saad bi moom wóor na. Mhm. wóor na. ndax digganteem ak Cheikh Saad waaw loolu moom wóor na. Mhm. mais sëñ Touba nag comme amuñu. parce que du ñu wax lu ñu xamul. mais moom tarixa bi mu yoroon ban la tarixatul xaadiri la ah, yoroon. tarixatul xaadiriya. te loo gis rek nit ki dafay war a am explication. benn Cheikh Fodé ba muy jihaat bu jubee dëkk ay tabala la ñuy dóor. Mhm. kuy door ay tabala bon xaadir nga. xaadir nga waaw. ñaar. Mhm. Cheikh Fodé ñaar fukki doomak juróom lañ ko xamal. Mhm. ñaar fukki doom ak juróom yooyu ñëpp yonent bi la leen tudde sallallahu alayhi wa sallam. wala saxaaba yi. Hmm? ku dul yonent beeg saxaaba kenn doom la si tuddee ñaari doom la am yu ñu tudd dul yonent bi du saxaaba yi kenn ki ba mu dem ba mu ba ñetti wër après lay soor a juddu donc manul joxe tour wi hmm kenen ki la tuddee abdul qadir ski bon qadir la sharif hmm comme ñalé mom ba muy tudd doom ñale mën naa am ay xalé lañu hmm leen a tuddee doom mais mom cheikh na seex saar bi moo ko seexal wala ah, question bu am solo ngi nonu hmm tour bi dé ci mom la joggé Cheikh na Cheikh Saad moo ne ko Cheikh. Fodé Fodé. Mhm. moo ko seexal. Mhm. wala sëriñam la. wala du sëriñam. Mhm. na Cheikh Saadibu ak Cheikh Fodé rek a ko xam. est-ce que lu parce que day naqaree comprendre. nit ki nga toog jàng alxuraan. jàng xam-xami diine yëpp. ñëw def jihad. tuubal lu toll ni il yi mm-hmm. ba am juróom-ñetti fukki at mm-hmm. ngay uti sëriñ mm-hmm. waaw wante nag comme ni ko benn nit ku baax di waxee ñu koy wax Mamadou Diouf sama diina faajal si benn ziar bu ñu doon defal Cheikh Fodé mu ne Cheikh Fodé day dafa mel ni ku yoroon ni paan di root rek di woor root pétrole di root pétrole boo pétrole bi fees mu des rek ñu ne Cosette Almet sànni si moom loolu la uti woon si Cheikh na Cheikh Sall. Ah, waaw waaw. <laughs> ndeysaan maanaam am na pétrole bu ba mu doy. ba mu doy li ko dese woon rek mooy lu ko taal. waaw parce que ku jàngee dëgg la ba ñu tuddee la fóore. fóore si olof mooy. fóore si kan fóore uh-huh. ak kan fóore. Mm-hmm. ñu ne déet nga ñëw def oote fukki du jege fukki at. Mm-hmm. bañ a def histoire ñu tànqamlu la. ba nga ootee lu xaw a jege fukki at nga jihaat mhm. loo ëpp fukki at ba am juróom-ñetti fukki at mhm. jóg ne mes tàgguwoo kenn waxoo kenn fan nga jëm mais loolu doy na war booba yaa nga xawdu yaa nga xawdu est-ce mu ñëw xawdu xam naa bu fekkee ne moo fa yóbbu boppam mhm. fekk fa Mouhamad Fadil parce que 1900 fekk na Mouhamad Fadil jóge fi. Cheikh Mouhamad Fadil Mouhamad al Fadil radiyallahu taala anhu mu jóge fa dem Nimzaat fekk fa Cheikh na Cheikh Sadibou. Ah. est-ce que dafa ñëw jébbalu si moom bu amee dañ siy sawar mhm. dañ siy sant yàlla parce que Cheikh Cheikh na Cheikh Saadi bu ko jébbalu si moom ba nekk taalibe tiitër la tiitër la uh-huh. wala la yóbbu Sëriñ Tuuba sa Trarza mhm. si Ahmed Baba mhm. parce que mu ngi mel ni tey nit ki di la wax ne Sëriñ Tuuba de en 1903 dañ ko yóbbu Mauritanie mu dem Trarza si Ahmed Baba ngay laajte ndax Ahmed Baba mooy sëriñu Sëriñ Tuuba xam nga da ngay di problème. waaw da ngay indi problème mhm. <laughs> <laughs> uh-huh. donc loolu parce que ñun ñu ngi si ay recherche te li ñu bugg mooy yàlla dimbale ñu. Mhm. ba ñu am preuve écrite. Mhm. ne. Serigne euh, Cheikh Ahmad euh, Cheikh na Cheikh Sadibou Khayat. Serigne Serigne Cheikh Fodé la. bu boobaa ñun noppale ko parce que nag bu dañuy bañ rek tooñ. te nag kilifa kenn du ko tooñ. Mm-hmm, mm-hmm. wala déedéet seex ne seex Sadibou. Euh, ak seex Fodé dañu tas tase Trarza Tra euh, Toisict wante seex Fodé la ko yóbbu Mauritanie du bànneex yi boppam. Mm-hmm. parce que toog ba am juróom-ñett def lii yëpp ba am juróom-ñetti fukki dox lu mat ñaari junne kilomètres yu manqué juróom.

comme li nga wax rek xeyna dajale na ba am pétrole waye nak lu ko taal nag. loolu mooy ke ñu naan mën na koo jëlee ñu naan moo tax ñu naan. lu xeetu sërif. est-ce mo moo bopam bu fekkee ne colonialiste ñoko ñoo parce que li tax ñu ci ñaaw njorto. Mhm. dafa am ben rapport bu colonialiste yi def. Mhm. pour wan la ne def ñu ko caaxaan. Mhm. si rapport ba ben waay ju ñuy wax euh, mboup Assane mboup je crois. Mon cobindo, mune le directeur politique de la France c'est un colonial bi ba fait un rapport après 1895, après gouverneur gouverneur daf ne ko yow sa rapport bi mom serigne bi ngi si moom sa maslaak moom bari na de. allahu xanaa. Mhm. la ñu daloon si Ahmad euh, Mouhamad Lamine. Mhm. comme Cheikh Fodé Mouhamad Lamine la tudd. Mhm. moom ngay bañ mu dal la fii. doon na dafa déedéet def rapport bu sévère si Serigne Touba mu ne ko xanaa la nga maslaak Mouhamad Lamine. boobu déporté ko Gabon te ñu xawoon la si euh, maanaam soññi xawoon la si xas xawoon la si mere moo tax maslaawuloog Serigne Touba. Mhm. ba sa rapport bi tàngee nii ba ñu war koo convoqué ndar. Mhm. mille euh, mille en mille huit cent quatre-vingt-quinze. waaw mille huit cent quatre allah. donc ñun ñu ne waaw Mouhamed Lamine boobu bon kan la. est-ce que du Cheikh Fodé. mën na allah. kese maa <laughs> ngi foofu. <laughs> macha allah am nañu mbégte. Mm. Euh, mbokk yi mi ngi noonu nitu yàlla baa ngoog. Cheikh Fodé ngoog boo ko dégloo ca ngay xamee ni jàng du wees. Mm-hmm. dégg nga ambassadeur fi mu dooree ak nun bi mu ànd ndijaayam ya. booba lislaam tumuranke na gis kuy jàng alquran ak ku koy jàngale tumuranke na waaye jamono bii yaakaar naa kuy xeetu Sidina Muhammad war nga ko gën a sant ñaanal sunu mag ñi. jàng jafe woon na te léegi jàng yomb na ñaar fukki at ak benn ca nga xam ni cee la tàmbalee jàng alquran moom Cheikh Fodé li ko jàng jaral samay ndijaay bu nu ma gisee du jàng mu fexe ba réeroo ak ñoom. Mm-hmm. jàng ba am xam-xam na mu tuddoon furu mu njëkk wa jaata di jaata léegi ñu koy woowee Fodé. Mm-hmm. Fodé bu ngeen ko déggee xam ngeen ko mooy kànk Fodé ñuy dem banaan Fodé. Mm-hmm. ci xam-xam bu sell bu yiw boobule mais ci xam-xamam bu ball ba. boole kooku wilaayaam nga euh, bañ naan ko euh, Cheikh Mouhamed Lamine Cheikh nga bàyyi ko ci seex na Cheikh Saad bu mm-hmm. nit yàlla boobu gis nga gox ya mu toj ñëw fekk ñoo xam ni dëgër nañu bopp ci bañ a dugg ci lislaam waajal na boppam ñëw ne day jihaat ak ñoom la yàlla waxoon yonent bi ne ko boo xeexul ak ñoom ñëpp dem safara yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina Cheikh Fodé dem defaruwaat ba doole ja ñëw mu ñëw jàmmaarlook ñoom ñëpp dugg ci lislaam kon ñoo ku ñooña tey ñay fàqikoo ci seen i ndigg ñëpp ay julit lañu grâce à Cheikh Fodé liggéey gi mu liggéey lislaam liggéeyal ko Sidina Muhammad mbokk yi kii jar na xam jar na waxtaane tey dañu ñëwoon rek euh, tàmbali ak moom daañu ñuy wàcc yeneen i plateau spécial yoo xam ni daañu gën a xam kan mooy Cheikh Fodé Ndong am na ziar bu daan am at mu jot Covid bi moo tax ren ñu dandal ko di ko defee ci biir kër yi ambassadeur ñëw na waxtaane ñu ko beneen yoon dina ñëw mbaa am ku mu ñu yebalal waxtu wi nag dab nañu ambassadeur kenn doyalul euh, sama téléphone bi nit ñaa ngi envoyé message ñi nekk bitim réew mhm. ñi ne ci biir réew mi kilifa yi ñëpp kontaan nañu ci yow mhm. ci waxtaan wu sell wi ci pédagogie bi mhm. ci ni ñu expliqué kanay Cheikh Cheikh ba ñu ko xamul woon dugg na seen biir xol ñu ko jotoon xam gën nañ ko sopp euh, yal na yàlla yokk leer ci barkeem ma bàyyi la nga daal di wax sa kàddu gu mujj rek ñu tàggoo ba beneen incha allahu taala jërëjëf Pape ñu ngi lay gërëm di la gën a encouragé sa liggéey bu rafet bi ngay liggéey. jërëjëf jërëjëf. di répété waat di gërëm boroom kër gi. Mm-hmm. parce que nag. Mm-hmm. bu dul woon moom <laughs> dina jafe. Mm-hmm. nit ki moom li mu yelloo rek danga ko koy delloo. ñuy gërëm itam kilifa yi ñuy déglu yëpp. di leen baalu àq bu fekkee ne njuumte am na si. parce que doomi aadama moo matul mm-hmm, mm-hmm. mais lu baax rek lañ si jublu mm-hmm, benn jubluwaay rek lañu ñu am mooy niti yàlla bu liggéeyal yàlla sonn si comme ni Cheikh de sonne ñu bañ koo bàyyi mu nul mooy suñu soxla te loolu devoir la parce que alxuraan àndil nañu façon bu nekk won ñu ne niti yàlla lu rëy la bon bu niti yàlla taxé ba yonent yàlla Muusa di def birig di yëkkati mur bu daanu bako yàlla ne demal nga sét xudor mu ànd ak xudor étape yi mu def yeb buñu ko tammi mayon ñu wax ko ba lañu def sagal ga khudar ki yonent yalla musa mhm. am lam si wax. Mhm. dar ne ko newon na la del muñ. Mhm, ku manul muñ manul and ak man. mu joge fa. dem si benen dekk toj fa bopi xale. joge fa dem si ñetteli dekk ba. fekk fa nit ñoo xamne ne ay tukulor lañ nga bal ma. sumay mam tukulor la wante man serreur la <laughs> euh. mus ñooñu nanguñ leen defal benn teranga mais terewul ba ñu rombee ñaari xale yi toog yonent yàlla nabiyullahi xudar parce que am na ñu ne sax nabi la ne yonent yàlla Muusa nañu yëkkatil xale yi seen mur bi lan moo tax fa kaana abuhuma salihan barakallah macha allah. <laughs> bon nag am nañu mbégte. insaan uh-huh. saalix moom loo si sonn rek jar na ko. jar na ko jërëjëf ñu ngi lay gërëm yow itam. jërëjëf di gërëm ñëpp di baalu ñëpp. vraiment ko yow ko nuyul bu baax a baax. mais ambassadeur bég nañu. man ñoo gën a Cheikh Omar Sy mu sëriñ Maodo. Uh-huh. moom itam mi ngi lay nuyu ak mm-hmm. sëriñ Moustapha. Mm-hmm. gërëm nañu la bu baax a baax mm-hmm. taxawu gi nga leen taxawu. Mhm. Euh, ci jàng ma ba ñu bañ fi bàyyi dem euh, Kowet dem euh, na nga leen daan jàppale. Mhm. ca ba ñu nekkee Kowet ca njàng ma. Euh, sama sëriñ sëriñ Cheikh Omar Sy mhm. mu sëriñ Maodo mu Cheikh Alhaji Abdou mu Seydi Alhaji Malick mhm. gërëm na la bu baax a baax ñaanal na la xeetu ñaan yoo xam ni mhm. kenn xamul nu mu toll moo ko rakkam Seydi Mouhamadul Moustapha ñoom ñëpp nu ngi lay gërëm bu baax ba ci sama sëriñ sëriñ Maodo gërëm nañu la sama ndijaay Ousmane Ka euh, mi nga xam ni mooy taaw sëriñ Jibel Ka suñu mbokk euh, sama ndijaay Baye Ka di doomu sëriñ Jibel Ka di say mbokk ñoom ñëpp dañu am mbégte ci dalal gi ñu la war a dalal ñu war a waxtaane nitu yàlla boobule mais bu ñu waxtaan diggante. waaw waaw naroon nañ ma may ñaari minutes rek. waaw euh, wane li ñu bokk. waaw yaatu na. laay maxtaar benn benn minute benn minute. waaw la ñu bokk man maag yow. waaw wane la ma bokk ak waa Tiwaawoon waa Kër Sëñ Abdou Aziz Dabakh. waaw. ba nga xam ne ñooñu seen baax du lu may bett. Mhm. gis naa témoignage bi Cheikh Omar doomi Maodo. Mhm. def si man. Mhm. kontaan naa si itam maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla yóbbu ko fu weesu njortum amiin maa ngi gërëm sëriñ ba itam muy sëriñ Maodo. Mhm. di di itam di nuyu xalif ba sëñ Babacar. Mhm. wante nag occasion bi dina ma may euh, nga xam ne sa mbokk laa. Mhm. wër. parce maam maas ka sa gambi bi. sa mëri maam maas. sa maam la. te man suma yaay. Mhm. ay satu Jeng ñu koy wax yàccata. Mhm. ñu ngi ko siwul foofa. Mhm. benn ñaar maam maas soxna Géey kan ma ko jur. ak Sali. Euh, euh, Anta Sali kan Anta mi jur. Maam Mor Anta mu jur Seexul Xadim ak mu jur Seexul Xadim. ak euh, Musa Xujja Baara kan mi jur suma maam. ñoo bokk benn baay. donc soxna Gueye kan moo jur maam Maaska. Mhm. Anta Sali kan jur. maam Mor Anta Sali mu jur Serigne Touba. kon man su ma neexee laaj addi de. waaw waaw xadim al sëñ Touba ku bokk ak moom am nga droit laaj addi. Mhm. donc bu ñu bokkee kooku. Mhm. su mbokk nga. mais plus man dama bokk foofu ba pare. ñëw bokkaat ñoom si biir jamono ji ñu nekk ni nee naa la Elimaan bay jiite tey sa dëkk ba Medina Baye Maas. ñu koy wax Serigne Mbaye Ka. Mhm. di jiite jumaa ja aawo mag moom ma bokk ndey ak baay. barakallah am nañu mbégte. ba ba côté boobu xam nga leer na. leer na leer na leer na. sëñ Abdou Aziz si lan laa bokk ak moom. waaw xam nga. léeg-léeg nag dangay ngay xaw a baal ma de. une ah. seconde waaw. ba sëñ Abdou li bokk rek. waaw mooy Alburi. waaw. Jolof. ci soxna Sofiatou. waaw waaw. man ca Tajeng mooy suma yaay. Mhm. Cata Dieng Roqiya Silla ko jur. Mhm. Roqiya Silla Cata Ndiaye ko jur olof yi yi ne Sata. Mhm. Sata Ndiaye. Sata Ndiaye buur ba a ko macha allah mi ngi noonu leer na leer na ambassadeur euh, Cheikh Fodé Ndong yaakaar naa mbokk yi tey jii mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog nun bëgg nga euh, xam naa euh, incha allahu taala aljuma ji di ñëw oustaz Modou Fall dana ñëw moom itam ndax dama ni woon aljuma jot incha allahu taala daañu waxtaane Sidina Muhammad waaye itam yenn saa yi ma jël benn aljuma jël benn mag nu waxtaane ko nga aljuma jot gis nga mag ngañ bàyyi aljuma ji passé euh, gàmm nañu ci xilaasu zahab bu cheikh sidil xaji malik jambar ja dina indi jabor cheikhul khadim jabor cheikhul islam dem kër seydina limaamu euh, xol fa borom xam-xam yaak jang ya, ya ñom mambay laay ñoom ñëpp taala bégal len ci yunus bi alayhi salatu wassalam dem keur mam cheikh omar fuuti tal duma bayyi ben keur ci eutu keur diina ji waye nu ñew waxtana yunus bi alayhi salatu wassalam waye xam ngeen nak ni inshallah taala boba ak legi dawa keren bis bu ne aljuma ju jot yeenu ñu gis waaye nag mbokk yi xam naa incha allah te boo euh, tuuti aljuma ji di ñëw ak beneen aljuma ja ca topp nag incha allah taala Oustaz Modou boo moytuwul euh, aljuma yi noppalu lay doon ñu teegaatal leen yeneen waxtaan yi weesu bu jógee ci janvier bi nag aljuma ja ca ndikk nag nu gàmmu euh, woo boromi xam-xam yi woo jàngkat yi kenn du manqué bégal leen Cheikh Fodé ambassadeur yal na yàlla yokk la dëgëral ñaanal sunu wuy jur boobu sunu maam ju tedd jooju nitu yàlla boobu di Cheikh Fodé Ndong yal na yàlla yokku leeram taasuñ ci barkeem apulaay Alassane ak Seyni Lay Maxtaar moo ne woon ci régie bi sama xarit ñaanal ko dem Màkka ñaanal ko am soxna Alassane ak Seyni ñëpp nañu nga takk soxna Alaaji moom itam bi Laalik Samb Yuga moom itam mi ngi ci régie bi Xaadim Cissé nekk ci caméra bi euh, ñoom ñëpp yàlla ngeen am jàmm dëkk bi am jàmm réew euh, mu Cheikh Fodé yàlla ko yàlla yokk dëgëral gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax Serif Adramé Sadbu Mbacké Serif Adramé di mhm. léppi bi mhm. moom itam boobaak léegi léegi ni mu coordonné yal na ko yàlla yokk dëgëral mbokk yi jàll leen Serif Xutub yal na yàlla yokk ko yërëm yal na yàlla kewel aljanaam xaalis Diagne euh, Sadie Diagne euh, Polel Diagne yéen ñëpp nu ngi leen koy jaal euh, Eli Cheikh nu lay jaal sa waajur bu tedd boobule jaal ko njabootu Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp yal na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem incha allahu taala ñu ànd ak yow gërëm sëriñ Adramé Cheikh Serif Adramé. Mbacke ñu àndandoo bu gërëm Serif Adramé. waaw si taxawaayam bu rafet. ci taxawaayam bu rafet yal na yàlla yokk la dëgëral Serif am nañu mbégte wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.